d'abord may remercier cet équipe là équipe bi nekk fii actuellement d'avoir bien voulu ñëw fekkee filmer suñu jotaay bi mais en fait euh, lu ko waral surtout ginnaaw yàlla c'est notre doyen qui est là Ablaye Ndaw un ancien policier en retraite qui nous a ñun ñëpp il nous a contacté individuellement pour que ñu crée une sorte de je dirais pas de club mais pour qu'on regroupe tous les jeunes enfin pas jeunes mais tous les adultes yoo xam ne daal defuñu dara mais qui sont dans le coin c'est-à-dire si je dis deful dara pas dans le cadre du football c'est-à-dire que ñii ils sont déjà en retraite ñii ils sont en train de faire euh, d'autres activités et il se trouve aussi que am na benn équipe nawet euh, benn équipe vétéran benn équipe vétéran bu nekk ci koñ bi mais il se trouve que ñun ñii nekk fii yëpp kenn personne la possibilité d'aller jouer là-bas alors nous avons trouvé la parade pour associer tout le monde ñu réunir ñëpp ñoo xam ne daal te bëgg nañ football bëgg nañ en quelque sorte vraiment bokk ci suñu association bi suñu groupement bi d'ailleurs on a même un site qu'on appelle la référence ñëpp ñu bëgg ci euh, bokk ci association bi pour que nous puissions venir chaque dimanche ñu défouler ñoo xam ne daal qui ont envie de jouer au football par exemple c'est un tailleur Lui, c'est un homme d'affaires. Idi aussi, je crois qu'il est dans les affaires. Briguel aussi, ngi Mungi Moussafa, Mungi Affaires. Kay Grand Boy, c'est aussi un ancien footballeur, à la retraite, certes. Certainement Grand Boy qui a entendu parler de son frère. Euh, Grand Boy qui jouait à Gorée. Et d'autres aussi, Alisso, un ancien militaire. Lui, je l'ai déjà dit, c'est un ancien policier. Qui, Mohamed aussi, c'est un peintre. nekk faisons qui, pas Doudou, hein. ah Saliou d'accord Saliou Keita tous ceux qui sont là pendant toute la semaine dañuy yëngu ci dara ngeen baal ma nag si j'arrive pas à citer tout le monde ngeen xam ne ak seen doyen seen Ibou Kane tout le monde tout ceux qui sont là réunis ah nous nous sommes réunis dans le but vraiment de créer une synergie dans le quartier parce que nous ne voulons pas que affaire bi yem fii rek nous voulons que après nous nos fils nos petits-fils la preuve c'est que ñun ñi nekk fii on a nos enfants ici on a nos neveux qui jouent avec nous on a même nos petits-fils qui sont là vous avez vu les gosses qui sont là ñii c'est des enfants ñii c'est des petits-fils ñii c'est des fils donc c'est pour te dire que le ce que nous avons créé c'est pour permettre qu'il y ait une synergie autour du club autour du quartier pour que ñëpp ñoo xam ne daal vraiment en dehors même su amee nekkuñu dans le cadre football lépp lu am ci koñ bi qu'on se si la mosquée a des problèmes qu'on se réunisse autour de l'essentiel koñ bi su amee problème ay inondation ñun ñëpp ñu jóg comme un seul homme pour essayer de régler le problème je crois que pour l'essentiel c'est surtout ça l'historique je vais le laisser il va vous donner avec beaucoup plus de précision date bi ak affaire bi yëpp quoi xam nga tey sport la sport gis nañ ne moom mooy gën a tax muy fédérer nit ñi des gens qui n'ont pas joué depuis 30 ans dégg nga kii di wax depuis 84 bàyyi na nawetaan mais ça leur permet effectivement de venir ñu ressourcer wu mais fondement bi c'est pas seulement le sport c'est pas seulement le sport képp ko ko koo xam ne daal il a un problème ou bien dafa am activité loo xam ne daal c'est dans le cadre du tous nous nous comme un seul homme pour essayer si vous voulez de gérer ça j'ai dit tantôt le problème de la référence référence on échange régulièrement lépp képp koo xam ne koo gis ne daal il a une information il a des vidéos il a tout ce qu'il a il le met dans la référence pour que nous tous nous puissions partager donc pour vous dire simplement que le sport c'est vrai c'est le moteur mais ce n'est pas le seul élément si vous voulez de notre groupe ah ginnaaw bi ma leen nuyoo di leen di leen gërëmaat rek parce que si cadre sport la dañ leen di gërëmaat rek c'est que comme euh, ni ko Aliou waxee euh, effectivement euh, loolu la mais affaire bi rek yemul si sport yemul si sport parce que am na ay vole yu bari yoo xam ne dañ ko si def daal mais comme li nuy wax rek affaire bi dangay dem ndànk ndànk ndànk ba atteindre lu bari si objectif yi quoi mais on a de d' d' autres objectifs yoo xam ne daal vraiment bu ñu ko atteindre euh, macha allah dina dina baax mais euh, exclure nu amul exclusion d' âge ni de de religion ni de confession non dañ ne tout habitant tout habitant de Grand Yoff xaar yàlla xawma ma cité millionnaire partout tout toute personne bi nga xam ne mun na contribuer euh, tant soit peu. si loo xam ne bu ko waxee ñu am si njëriñ il est invité du problème c' est bi comme ni ko kii waxee c' est le c' est le, c' est le moteur euh, fédérateur mais mais mais du du du sport bi rek parce que kii ça nous permet de se retrouver les les, les dimanches on est là on se parle ainsi de suite mais dinañu permettre aussi kii jëlal kaawu kële dafa ferme boutique am ses activités pour ñëw dimanche kii il a laissé ses, activités Ibou Kane pour ñëw Oumar euh, Oumar Keta a fermé son son atelier de métal euh, pour ñëw euh, euh, Idi la même chose euh, Conté la même chose Briguel la même chose Sène la même chose Alla la Alla il quitte Rufisque pour pour venir donc vous voyez ce que ça fait donc kooku loolu rek un exemple bu bu woon la ne vraiment épargner wuñ kenn daal épargner wuñ kenn Euh, peut-être euh, de par la force des choses moo tax sax d'ailleurs mu dëkk Tëngéej mais il est euh, il ñëpp xam nañ ko si koñ bi il a fait ses œuvres ses preuves dans le quartier déjà tey tey bu dellu see macha allah ñoom Serigne Abdou il a fermé sa sa boutique pour venir Ahmed bi muy ñëw dafa daw jël taxi dafa jógee chantier la jógee daw jël taxi ñëw pour pour ne serait resque que dim occasion bi la am pour gisaat nit ñi en tout cas daal ñu di leen ñaanaat lii buñ ko bàyyi. na nan nan ko continuer mu gën a jëm kanam njëriñ li mu ngi si kanam daal njëriñ li parce que man dama naan benn affaire boo départ rek njëriñ baa ngi si kanam tu vois loolu daal euh, en loolu laa si amoon lu may wax ñu wëcc euh, ñu may Ibou Kane ne serait-ce que deux minutes mu mu si kàddoom. bon en résumé ah damay sant ñëpp di xaw a résumé rek li grand yi wax. di leen gërëm ci initiation bi ñu am quoi parce que tey euh, la référence bi permettre na mu am benn cocktail entre mag ak xale. te ku wax xar yàlla Grand Yoff xam na li ciy wax ci banditisme ak léegi te lii dafa bu beaucoup de problème te jii suñu retrouver wu ñun ñëpp en famille di ngay rus a def yenn yi si devant say grand frère wala say pap wala leneen ak leneen donc groupe bi tey li muy régler ci biir xar yàlla kenn xamul nu mu toll voilà donc te euh, yemul foofu rek euh, social bi bon ñu ngi koy def loolu yàgg na soo xoolee grand yi ku ci nekk toujours fu am problème biir xaar yàlla ñoom ngay gis ñu takk seen daal la dugg régler ko silencieusement te kenn du ko yëpp donc ñu fi nekk ñëpp man pertinence sax laa gis ñu jël groupe bi tuddee ko référence ñoom ñëpp soo jëlee benn par benn ay référence lañ te jëlul woon loolu ñun duñ fi taxaw sax naan dañuy fubal ak ñoom dañoo gis ñu yar ñu ñu nekk seen kanam ñu won ñu exemple ba tey ji ñu ñemee ñu dem ba am ay soixante dix ans soixante quinze ans taxaw ñu ubbilaat ñu ñu nekk seen biir donc ñoom wax dëgg yàlla macha allah romb nañu référence voilà donc cotisation la rek. fii ay bonne volonté ñoo fi nekk kenn mënul lépp lu ñu am dañ koy cotisé amul kenn ku nekk suñu ginnaaw ñu ñooy cotiser ñëpp te cotisation bi aussi nekkul loo xam ne c'est force ñii dañuy ñëw andi lu ñu am ci sutura ñu régler li ñuy régler def ko donc wax dëgg si yàlla groupe bi mu ngi régler lu bari lu bari mu ngi koy régler fii ci biir xaar yàlla. waaw lu tax ma ñëw motivé fekk si paay fii du du dara parce que tamit paay ñoom ñoo ñu jël boole ñu suñu seen bopp quoi ñoom ñoo ñu wan lu tax ñun ñu ñeme leen ba ñuy ñëw ne dañuy euh, euh, ba dañuy ñëw ne dañuy ànd ak ñoom football ak ñoom quoi te du man kase maa fi nekk jeune am na yeneen ñoo xamante ne tey ñëw ñu loolu lépp paay la ñoom ñoo ñu xajal yaatal ñu. wan ñu loo xamante ni ñun dinañ leen ñeme ba ñu ñëw tey nekk ak nekk ak ñoom nekk ak ñoom tamit du tax ñun ñu jàppee suñu boobu comme ñoom respect bi day am respect bi day am que football moo demee loo xamante ni dafa doy waar lu nekk mu ngi ci football boo xasee ba def rek benn esprit beneen esprit ngay yor mais ñoom dañu comprendre ci loolu bu jeexee jeex na si biir terrain fii ku fi nekk boo ñëwee fii si ñun booy am nga jikko boo ne mais boo ñëwee bu eggee si porte bi rek da nga koy kale indi fi beneen respect parce que avant tout ñu dañ fi fekk suñu ay papa yar nañu si nu ñu war a yaree ba tey budul fii sax di feneen fu ñu mun a dem dañ fa mën a nekk quoi te grâce à eux moo tax tey ñu mel noonu ñu leen di santaat ci loolu di leen koy gërëmaat di ñaan yàlla suñu borom yi nga xamante ni moom moo mën quoi bàyyi leen suñu kanam ba ñun suñu yéene si ñoom ñun ñu eggali ko suñu yéene du lii quoi suñu yéene si ñoom mooy yàlla dimbali ñu am lu ñu may sutura suba ba ñun aussi ñu mën dégager leen ñoom lu bari ci seen biir quoi. parce que tamit ay papa lañ yoo xamante ne mérité nañ plus que saa quoi vraiment bu ñu waxante yàlla rek tax depuis ba ñu nekkee xale ba tey ñoom ñoo ñu yar tete ñu ba tey ñu toll fu ñu tollu tey bu ñu yàlla amee lu ñu yàlla may lu ñuy suturloo incha allahu ñaan nañ yàlla ñoom lépp seen loxo lu ñu xamoon tamit dañ ci doon ñëw tamit dañ koy téye ñun xale yi ñun ñu def loolu quoi loolu la ñu pare. man damay euh, lancer waat appel boobu di waxaat képp ki nga xamante ne tey jeune la li dara. du wàññi sa talant du dara tey mu ñun daf ñu fekk ñun ñu ba tey dañuy football mais du ñëw si paay rek dafa mën a tax ñu mel suñu suñu qualité de de foot wàññeeku wala dara daal seulement que ñun mën nañu am lu ñu apporter euh, suñu papa yi parce que suba ñoom mun nañ tase seen morom rythme bu ñu leen di may ñun ñoom bu rythme bu ñu leen may bis bu ñu tasee dem ba taseeg seen morom rythme boobu bu ñu koy yenee seen morom yi ñoom du ñu tax du ñu taxaw ak ñooñu ñun loolu moo tax ñun ñu ñëw fii man lool moo tax moo ma indi fii di lancé waat sama beneen morom bu mel ni man wala bu ma ëpp volume de jeu aussi comme man ñëw comme comme comme ñooñ ñu may payi loolu noonu lépp suñu njëriñ la seen njëriñ la aussi ñun dañuy sonn ñoom dañuy sonn parce que tamit lépp football la euh, maa ngi lancé waat appel daal te képp ki nga xam ne jeune la dimanche la defoo dara nga ñëw ñu jàpp si paay xama jàppale leen aussi si côté bépp daal maanaam si euh, cotisation yeeg si présence bi surtout parce que am na solo daal ñu réuniraat ñun ñëpp booloo doon benn bokku ndey bokku bàyyi quoi waaye merci. nuyu naa leen yéen ñëpp euh, fu may commencé sama kàddu mooy Aliou Cissé bu mu seetaan lii ba tax mu ñëw fi ne day jéem a recruter benn jour fii jour yi fi nag dañu seer dama bëgg mu xam loolu nag jour yi fi nag dañu seer Aliou Cissé laay wax de na ma déglu. fii joueurs fi ne dañu seer mu ñu de bu mu yaakaar ne dañu yomb mu ñëw fii di jéem a recruter man kese kese kese kese man mun naa jël coupe d'Afrique waaw lu leer ndax fii nii chaque jour damay dugal au moins trente bit lu leer la wax moo fi mën bi ci des nag mooy su bëggee su ñëwee mun naa ko jox sama doom pétin moom au moins mën na dugal au moins ay quarante bit <laughs> bu ñu gàññewul coupe du Sénégal rek xam nga coupe coupe d'Afrique ci moom la bon gars yi gannaaw loolu maa ngi jégalu maa ngi jégalu baax a baax a baax a baax euh, di leen xamal ni lii rafet na rafetaay boo xamante ni euh, yal si yàlla teg loxo ah dinañ sant ñëpp de mais il faut ñu jiital si Ablaye Ndaw parce que xelam la quoi xelam comme moom moo ko xalaat ba jox ñu ko ñun dañ ko koy sante di wax ni nag moom kese mënul def dara def dara il fallait ñun ñu tekki suñu loxo pour yëf yi mën a dem si kanam comme ni ko fi ñëpp waxee mun ma fi wax lu raw li ñu fi wax lu dëgg ñëpp wax nañ ko kàddu yëpp rafet car macha allah kon nag képp ku ko dégg te nekk ci gox bi ñu ngi lay wax ni nga ñëw ñun dàquñu kenn muy xale muy mag muy ndaw bokk ndey bokk bàyyi ni ko bu kan waxee fii su baaxee ñu ñoo ko defar suñu gox bi kon na ñëpp ñëw ñu àndandoo bokk ndey bokk baay liggéey eh, jëm ca kanam maa ngi jégalu ñëpp nag hmm? Serigne Abdou Mbengue la artiste comédien la yaakaar naa ñu bëri xam nañ maa ngi sant yàlla baax a baax jërëjëf Eh, yaakaar naa ne suñ nee football tey gaal gi man maa nekk premier capitaine maak Mouhamed ñun ñoo formé équipe bi mais balaa loolu ñun dañu njëkkee juboo ba pare ba ñu xamee ne ñun suñu koñ am na potentialité yu mu mën a former équipe moo tax gaal gi formé wu en 84 kon jom jooju ak fulla boobu ñu amoon ba ñëw fii ba ñëw former suñu équipe fulla boobu moom moo tax tey ba gaal gi taxaw ba tey ñu ñii ñëpp ñu teew fii tey fii am ñëpp supporter la ñu ñëpp tey supporter la ñu supporter la ñu dirigeant la ñu encadreur la yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw tey yore seen audio ñëw fi aussi ñun ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant te di leen ñaanal bu baax que li ngeen ciy séentu yàlla defal leen ko ci lu baax ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ne tey journée tey c'est un jour une journée boo xam ne alors kenn war ko mën a fàtte parce que kenn mosul foog ne ñun dinañ fi nekk ci terrain bi fii ba ñëw ba ay presse ñëw di ñu fiy fekk c'est une avancée ñun aussi nañu xam ne que def nañu un pas un seul pas lañ def te ñun dañoo dese neuf pas ci kanam regroupement bi neex na mais aussi bon na xol yi ànd parce que ñuy daje nii rek te xol yi ànd ñu aussi amul solo amul njëriñ kon gaa yi maa leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant bu baax eh, di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekk ko ba suñuy doom ñëw aussi ñu mën a toog ñun ci tribune bi ñëw di leen di seetaan. Euh, kontaan nañ ci trop mais surtout affaire bi euh, mën naa ne comme niñ ko waxee. ñi fi tas yëpp du ay am na ci ñoo xam ne maanaam euh, ndaje bi moo leen fi boole parce que boo seetee sportif bu ne boo seetee ay karaté am na ci biir am ay judoka am na ci biir ay aikidoman am na ci biir tout sax yooyu yëpp a ngi ci biir mais pour mobiliser mais man li ma gën a frappé ci groupe bi mooy que képp koo xam ne gisuñu la benn dimanche bu balaa boobu dinañu jéem a nemeeku ci lan nga ne loolu man am na dimanche yoo xam ne ñëwuma fi mais franchement Euh, fu nekk la ma coup de di jóge di ma nemmeeku ci lan laa ne ba tax gisuñu ma loolu benn pas la boo xam ne vraiment gisuma lu ko gën rafet man bokk na ci li ma même bu fekkee ne dama xaw a kii sa euh, loolu damay motiver pour ma ñëw même bu ma football si dinaa ñëw terrain pour que ñu gis ma xam ne maa ngi ci jàmm parce que boo ko deful damay sonal ñeneen ngir ñu gëstu ci lan laa nekk noonu lañ koy defee ci man noonu lañ koy defee ci sama moroom ba vraiment lii euh, tax na ne. vraiment maa ngi ñaanal ñëpp yal na leen yàlla may fan wu gudd ak wër gi yaram ànd ak xaalis bu bëri nag loolu am na ci solo trop parce que mooy neexal mbir mi daal loolu daal laa am li ma ci dolli parce que franchement social boobu daal man bokk na ci li ma gën a frappé mag ci groupe bi daal waaw loolu daal moom laa amoon di ci wax ngeen baal ma àq nag euh, seen i partenaire la ñu à partir d'aujourd'hui seen i partenaire la lépp li nga xam ne dañ koy jàllale bu neexee yàlla Senclic lañ koy jàllale fépp fi nga xam ne nag war nañ leen fa mën a euh, mettre en relation aussi dinañ leen fa metre en relation parce que vraiment euh, disponibilité bi ngeen am euh, ba mu jaral leen ngeen déplacé wu si lii moyen en rien donc vraiment sa mérite sa mérite des félicitations na yàlla na leen fi yàlla bàyyi lépp li ngeen yaakaar si seen site bi yàlla na ko fa yàlla yóbbu lépp li ngeen xam ne bu leen ragal dara daal en tout cas parce que je crois que ne Euh, muy groupe muy ay nit bu beneen groupe nekkee si ginnaaw di ko soutenir force day yokku te désormais fu ñuy waxati aussi dinañ euh, tudd seen Sénéclic donc yéen ñëpp pratiquement mooy li ma doon wax man leen déjà pour ngeen am seen image il faut ngeen xool fa déjà pour euh, ñi nga xam ne ils sont dans les affaires seen i annonce fa lañ koy def léegi ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite te dina am yeneen reportage yu ñu leen invité yoo xam ne du du lii parce que ku si si nekk aussi bëgg nañu euh, ñun ñi ñun ñi composé groupe bi ku si nekk ay activité am ñu invité leen fa ngeen ngeen def reportage ci activité kooku quoi bu boobaa di ngeen xam kii euh, lan lay liggéey euh, mu doon benn partenariat boo xam ça sera un partenariat gagnant gagnant loolu daal laa amoon la nga xam ne moo na dama ne woon dinaa ko wax avant ngeen di ki ñuy remercier aussi waa waa bi sport ñi nga xam ne ñoom ñoo coiffé fii d'ailleurs en tout cas vous êtes autorisé à ce que ngeen jël image yi euh, le gérant est là-bas mun ngeen échanger aussi ak euh, ak ñoom fii tous les samedis c'est plein de de sept heures du matin à zéro heure tous les dimanches c'est la même chose tous les jours fériés c'est la même chose doo fi dégg coow doo fi dégg xulo doo fi dégg xeex vraiment c'est des gens yi nga xam ne macha allah ils sont super accueillants déjà loolu rek vraiment c'est encourageant ñoom it ñu euh, de passage ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax a baax jërëjëfati